jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyoo ñu tàmbalee tis bi dal njabootu Habré Hissène Habré doonoon fi président Tchad ay jamono moom nag moo génn àdduna tey ci talaata bi ginnaaw ab feebar bu ko tëraloon foofee ci li nga xam ne moo ci hôpital ba ah moom nag ñu teewoon ko fii ci Sénégal ca prison Cap Manuel ginnaaw yenn affaire yi nga xam ne jotoon nañ ko ah sancoon ah foofee ca Wakaam dëkk ak waa Wakaam foofu noonu nga xam ne moo nekkoon këram ak njabootam moom nag dañ ko mujjoon a ci li nga xam ne mooy Cap Manuel ca prison ba ginnaaw bañ ko àttee daana woon ko li nga xam ne moo nekk géeri dundam mu bëri woon coow lool ba ñu bëri di ci yëy yàbbi di ci wax ne jot na nag ñu bàyyi ki nga xam ne mooy nguuru Sénégal ku ci mel ni ministre de la justice moom sax mu ngi xam ne ne a surveiller bu baax àjjana firdawsi ah, dee doon noflaayam borom bi jéggal ko bu baax a baax a baax ah, gis nañ nekk sa beneen wàllaa ba ñi nga xam ne ñoo diriger li nga xam ne ah, mooy di ay kaawu corona wala li nga xam ne moo nekk mbiru covid 19 bi te jotoon nañ def test yu bëree bëri ci ñi nga xam ne ñoo nekk prisonniers yi ba tax na information boobu noonu ñuy wax naan Hissène Habré mbas mi moo ko yóbbu ci foofee ci prison ba la ko amee ñoom nee nañ ah, duñ nangu benn yoon mbir moomu noonu ah, di dëggal lu ci am daal moo ko ne ah, ki gis nañ nag témoignage yu bëree bëri ñi nga xam ne ñoo nekkoon wakaam foofee nekk ay dëkkandoom def nañ ko ci ki nga xam ne mooy Hissène Habré bu ñu jógee ci mbiru Hissène Habré moomu noonu dem si Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade ah, moom nag ah, indi na ci leeral waaye ci leeral boobu nag dafa sànni xeer ki nga xam ne mooy Mame Diarra Fam ah, nee ko xam ne mooy Ousmane Sonko nee a bawul benn yoon ki nga xam ne mooy Thierno Bocoum ndax xam ndax Mame Diarra Fam ku ko xam xam ko ci tontu ko nee nga nag Thierno Bocoum fils yow da xaar force ndax li ngay wax ni amul benn sens ak ah, ñun liggéey rek moo ñu ñor liggéey Sénégal moo ñor a ah, man démb la tey soogu ñëw man li ma am maa ko fàttal sama bopp ate ah, su ma waree doon meeru géej waaye dama koy doon force kenn mënu ci dara ba tax ab mission tax daal moom mu ngi ne na ko nag Thierno jot na nag nga xaar yow da xaar par force moom naal Mame Diarra Fam noonu la ko xamee bu ñu jógee ci loolu ñu waxtaanee mbiru Iran Ndao nekk ab jàngalekat fii a baax a baax ci li nga xam nekk ci li nga xam ne mooy liggéey bi muy def métier oustaz di xam leen nit ñi seen diine ah, moom nag saa su nekk muy def ay médiation ci diggante ay doomi aadama rawatina ay nit yoo xam ne ah, dañoo soxla ndimbal rek moom mu ciy def yu rafet rafet ah, macha allah nekk rek Iran moom lu mu tëgg rek dina ci rax puram ndax nag sotteem bi mujj moom da doon wax ne man kat Iran jongal yoon sénégalais yi nee nañ Iran nag nekk rek bu waxee bay bay daane rek faa mu créé buzz te jot na nag mu xoolaat boppam ndax Iran nekkatul ku ndaw ci réew mi te nit ñi dañ koy bàyyi xel te tamit nitu diini la te day jàngale li nga xam ne mooy alxuraan wala li nga xam moo nekk wàllum diine fii ci Sénégal ba tax na Iran Ndao nag jotaan na mu xoolaat boppam ba tax na sa ñenn ci sénégalais ñu ngi xam ne ne Iran mi ak sa jotul ñu ko ndëpp boo xam ne rek day taxaat xel mi ñëwaat bu baax a baax ndax Iran ni kat day sànni ay yérém wala dafa waaji sànni ay sagaram ndax tout rek mu wax waxi dof waaye jot na daal Iran xoolaat boppam bu baax a baax du samay wax waaye waxu ñenn ci ñi nga xam ne ñooy internet yi la ñoom ñoo xam ne loolu bu ñu jógee ci loolu ñu waxtaanee mbiru Kounkandé mi nga xam ne daa waxoon day xar géej gi Khalifa rappeur nag moom jour tam xarit daa génnoon fetal di xam ne ne ki nga xam ne mooy Kounkandé comme que xaroo géej gi man dinaa la wër su ma la gisee nag ah, di nga xam ne lépp dëgg la ba mu jotoon sa dóor fetal boobu ci kaw air bi ah, moom ah, woon foofe ci li nga xam ne mooy moom nag mooy këram moo ko ne moom demoon na uy waa dig cinq heures lay mujjee beneen kawteef lu dal foofe ca gël tàppe Fass Colobane ki maire bi di Babacar Diop moom nag moom la jàpp jàpp bi nag doonul dana lu ab luubal ndax yàgg nañ gis Sénégal ñi nga xam ne añoon faree ci li nga xam ne mooy wàllu mairie tout le temps ñuy def ay luubal yu bëree bëri ah, moom nag du gulet ñu topp ko ci mbir mi waaye jotoon nañ ko jàppaat jàppaat ko ah, d'après ay information moom nag daa jiyaan ay cantine ah, xam ne moo nekk commerçant yi te lépp ay dóor la te doonul moom kenn am na ñeneen ñoo xam ne sax jot nañ leen taqal ci mbir mi fu mu nii daal Babacar Diop ak beneen ñooñam téye nañ leen teg leen seen loxo yóbbu leen ci li nga xam ne mooy yoon lu ci amaam moo ne yoon def na liggéey bu am solo ci mbir moomu nag alalu jàmbur ku ko lekk da nga war rappeur bi di Souleymane Ndiaye alias Xulio euh, ab son ak ñetti fan yi ñu nag euh, euh, moom nag mujj nañ ko nag dañ ko placé ab enquête nag moom nee na sensibiliser juste ñi nga xam ne ñoo faree ci tarixa li ci ni tijaan beeg murid bi wala layan bi moom rek liggéeyu artiste képp la def waaye defu ci lenn loo xam ne lu ñaaw la bu ñu jógee ci loolu nag ñu waxtaanee mbiru Queen Biz mi nga xam ne ah, saa su nekk rek ñu gis ko mu photo ak mbokk ay célébrité am ah, ñenn ñu nga xam ne dañuy féete ca beneen wàllaab lu ci mel ni footballeur yi ah, bi yoon nag moo ak Mbaye seeni photo fu mu ne nii mooy lëmbe li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi dem nañ ca ba gis ki nga xam ne mooy Queen Facebook ak Instagram gis nañ sax Mbaye Diagne tontu ko foofee ci li nga xam ne mooy Instagram lu ci am am nag xamuñu ñoom ñaar dañuy génnam génnul information boobu noonu bu ñu déggee ne kiwin bi doon na ñaareelu Mbaye Diagne ba mu bett kenn ñu waxtaanee nag mbiru Serigne Moustapha Sy di indi ay leeral ci mu jot nag da koy teg ci ndodd mu jot ko ndax nag duggulet defoon na ko jamonoy Mame Abdou def ko ci jamonoy Serigne Babacar Sy Mansour nee na daal ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Sy dafa jot daal mu bàyyi yenn wax yu bëree bëri yu wax lu ci am mooy que ne fi mu ne nii ah, njabootu Serigne Moustapha Sy ki ne moo nekk Serigne Abdou ah, ah, ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ñoom ñaar ñooñu fi mu nii nag daa mel ni seen diggante neexul benn yoon te dara warul ko lu moo ne ñoom ñoo bokk seeni famille ñuy ñaan daal mooy jàmm am ci ñaari diggante yooyu ne ay mag ak rakk lañ ndax nag mag la ci Serigne Abdou Sy ibnu Serigne ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane moom mi nga xam ne liggéeyal na diine liggéeyal l'islam mbokk yi nes tuut ñu bàyyi leen ngeen seetaan vidéo jour su ko defee ñu ñëwaat armeer yaa ngi nii armeer yaa ngi dafa am ndox yëpp dafa am ndox mu ngi nii ñëw leen nag fii mooy armeer bi Médina baay ndax fees na del nag waaye lépp ndox la waaw li yëpp ndox la li yëpp ndox la waaw li yëpp ndox la kaay sama caméraman sama caméraman bi nag maa koy sant kaay ndax li yëpp ndox la gis ngeen ndox mi nu mel bàmmeel yëpp màbb na lépp màbb na lépp lépp lépp màbb na baal lépp màbb na lépp xoolal yëpp ndox la lii dafa ñaw nag waaye lu mu ñaw ñaaw ñaaw ñu ñoo ko mën a defar lu mu ñaaw ñaw ñaaw ñun jeunesse bi bu ñu xaar kenn ñëpp nañ xëy ñëw ku mën a ñëw na nga ñëw ñu ngi woo maire di woo xarit di woo mbokk di woo andi jàmm di woo jeunesse bi jeunesse bi il ngeen ñëw ñu ne nga jàpp si liggéey armeer ñu bay armeer yi dina ndox mi sëkk ko ak suuf ak ay xoor paañ wasalaam salaamaaleykum rahmatulah ñu ngi ziar waa Sénégal ñun ñaanal jàmm di ñaanal ñi nga xam ne fi nekk ñu suñuy suñuy maam ñoo fi tudd suñuy papa suñuy nijaay suñuy rakk suñuy doom ku nekk tëdd na fii ñu leen ñaanal yàlla xel leen àjjana te suuf si nekk seen kaw yaa yàlla oyofal leen ko maa ngi ànd ak sama benn tonton dama dama fekk fii dama kaa fekk fii tonton noo tudd. Moustapha Ndiir tonton Moustapha Ndiir dama kaa fekk fii parce que dama dañ ma envoyé ay quelques images sànq man il faut moo ñëw si arméry Mérina ñu ngi fii si arméry Mérina Baye waaye lii dafa ñaaw moom Moustapha Ndiir sëñ Moustapha Ndiir. ba mu yëgee affaire ba mu ko yëgee teg automatiquement dafa dem si imam expliqué ko lu mu demee yëpp maa ngi lay wax maa ngi lay bàyyi parole. asalaamaaleykum wa rahmatulah salaatu wa salaam ala rasulillah di sant yàlla di sant kilifa diine yëpp ci àddina bi di sant uh, suñu sëriñ. laa bi ñëw Cheikh Mahi mooy xalifa bi. Mhm. yàlla ko yàlla. yokk ay fanam. Mhm. Mm. nuyu imam Cheikh Tidiane yal na ko yàlla yokk ay fanam. wéral ko ah, man nag Moustapha Ndir laa tudd Medina laa la fi laa juddoo fi laa yaroo ah, fi laa màggee fi laa yàlla def ma dem Espagne nekk fa waaye dafa fekk at bu jot bu ma ñëwee yàlla def ma nattu ci defar ay kaaw ndox mi fi muy jaar ndox mu salte mi fi muy jaar bëgguma nit ñi di fa jaar muy bayaali baay bi muy jumaayi baay bi muy mbedd nekk bu ma gisee même temps euh, dafa nekk descente boo xam ne ndox mi bu jógee fee ci kër yi jaar ci armée day wàcc fii wala bu jógee ci taw bi tamit day wàcc fii day na waar day na waar trop yi daal dëgg-dëgg ci gàttal nekkut lu kenn di man nekkut lu ñaari man lii bu ko kenn mën a it waruñ ko cee seetaan dañ ko cee war kon merci. defuñ ngir xaalis defuñ ngir dara dañuy def ngir yàlla loolu rek moo tax ñu ngi def ndax fii képp koo xamante ne yaa ngi ci àddina bi fii ngay mujj. ndeysaan kër yi nga gis Medina yëpp. boo compté ku nekk am nga fi nit koo xam ne ñu ngi tëdd fii. ndeysaan kër yëpp nag laa wax. man sama ñaar ñetti maam ñu jeex na kër boo dugg rek ci Medina. ndeysaan ah buñ nit ñi am na ñu nekk fii. ndeysaan donc lii de fi la ñuy mucc moo tax ñu koy defal dëgg la nag nit kuy dund dafay def yëfi dund waaye nit kuy dee tamit war na ñëw suturaal palaasam bi. bàyyi ko xel tamit sax bàyyi. dañoo bëgg fii pour ndax mën a génn si armère yi ndax mën a génn si armère yi pour mën pour mën pour mën a dem waaye may waa koñ bi dañ doon wax. mais juste dafa métti na si xol. sa fait mal au cœur sax du ma xoo pompe bii imaam moo ko jënd imaam moo jënd pompe bi ñeenti pompe la imaam jënd pompe baa ngi nii ay ndongo daara lañ. gëm seen bopp maanaam dafa métti nag dafa métti waaw dafa métti trop mais pompe yaa ngi nii nag pompe baa ngi nii ñool pompe pompe baa ngi nii imaam moo ko jënd imaam moo ko jënd imaam Cheikh nga xam ne mooy imaamu imaamu imaamu Medina Baye moo jënd ñeenti pomp ñaar yaa ngi nii ñaar yaa ngi ci biir imam Cheikh yàlla nga gudd fan yàlla nga fi yàgg a nga wér ànd ak wér la lii dañ ko def pour ndoxu armée di génn ndax dafa ku nekk rek am nga sa papa bu fi tëdd wala sa yaay bi fi tëdd que mu neex la ou pas que mu neex lu pas sa papa bu fi tëdd wala sa yaay wala sa tonton wala sa rak wala sa doom bu jigéen kon yéen ñi nga xam ne am ngeen ñi fi amul ay mbokk un jour da ngeen fi fiiru fiiru fiiru fiiru néegu néegu ñëpp a fiy jaar ku mu neex nag bu dund. kon ñàkk gërëm ndeysaan buñ gërëmee yàlla ak yonent bi ak Baay Ñas di gërëm sëriñ bi xalifa bi di gërëm imaam mi nga xamante ne lii yëpp xalaatam la yaa may dégg ba lii amee ak Cheikh ko Cissé ndax ñoom la ñu gis seen loxo waxtu bu nekk ak taalibe yi nga xam ne ñi koy def ci suuf bëggul kenn xam leen yaa may waaye ñii taxaw nii am nañ ngërëm goo xam ne ngërëm spécial la muy waa Daara Baye Cissé Ndorong ma nekk ca Ndorong. Ndorong waaw di muqaddam yi maam Cheikh Ibra Fall sama goro Kousi man doomi sëti maam Ibra Fall lay denc dëgg-dëgg donc Baye moom may jabar. fii depuis cinquante ans nii la mel nii te lii dañ ko dindi fii dafa ko ba mu mat dafa ko ay kanti lii dafa ñaw trop dafa ñaw lii dafa ñaw bu ñu nee ñu dara war nga mën a koy sotti gisoo kii léegi la sotti mel lii dafa ñaaw jëlal lépp jëlal lépp jëlal lii maa la kër lii dañ koy dindi fii kaw lii dafa war a jeex ñu xool la ngeen toog toog seen kër bi la jëlal lépp waaye yéen li nekk fii mbaa yéen jàmm la waaye du jàmm waaw du jàmm de waaw léegi nag Mariama Sarr waaw deful Kaolack dara dara dara dara wa wax si kaw Mariama Sarr lu waxal deful ci Kaolack dara dara dara dara dara dara dara waaw ba foloo ba léegi waaw def gisuñu lu mu fi def waaw tari woo yaa ngi nii bougé waaw ah waaw gis nga mbalit mi waaw poto poto yi waaw ban njëriñ la fi am waaw na fi jógee léegi la ngeen bëgg Kaolack yéen mu rafet ak lan lépp mhm. ak liggéey bu baax. waaw waaw lan ngay wax seen waa Kaolack seen Kaolack loolu leen wax. jeunes Kaolack yi. waaw nañ góorgóorlu wote ut ke beneen maire maire bu baax. Hmm. ñu teg ko fi yéen tamit bu la ñàkk fulla bu la ñàkk fayda ñu ñëw jul ay tisat ay dix mille francs dix mille francs taxul maanaam nit da ngay man ba leen maire ñuy jël ay dix mille francs bu ñu ñëw joxal dix mille francs ma ba leen loolu. Hmm, il faut ngeen bañ loolu. Hmm, kala bu ngeen bëggee mu rafet. Kaolack xam nga ko defar. Ah. borom xol pas borom tet yow man borom tet laa kii borom tet la Kaolack moo koy defar il faut ñu dimbali doomu adama yi. wallaahi defarul Kaolack nag. dina métti si marché Kaolack marché syndicat bii. damaa salté ak lan. jigéen ñi bëgg a fëddal. waaw tabaski gi yëpp jigéen ñi fi lañ fëddal. fii nii. waaw ndax lan tilim. tilim li may fëddal lii. Ah, noo koy fëddalee moo xam ne xool na ko. nga génn. nga fëddal sa bopp. nga génn. léegi nag lan ngeen bëgg nañu def lan ngeen bëgg nag si lii lan ngeen si bëgg. ba mu rafet. maintenant hmm. mënuñoo toog te yàlla daa jóg ñu ngi toog. waaw poisson baa ngi nii lii marché poisson bi la xoolal lii waaye xoolal lii naa lii rafet na depuis ñaari at ba pare ñu ne ñu ngi liggéey liggéey wuñ de liggéey wuñ laaloo dañuy tappale nañu liggéey laala wax te bàyyi tappale gi. ñun ñu laal ñu joxe ko. waaw. ñu mel ne rek ñun dañoo dëkk ci àll wala ñun duñu ay wala ñun ay xaj lañ defaruñ marché bi ndox maa ngi nii foo non boo nee defaruñ marché bi da nga naan marché bi rek la est ce que marché Kaolack fii nii rek centre bi rek la ñu war defar wala marché Kaolack yëpp wala Kaolack yëpp ñun daal defaruñ Kaolack boog defaruñ ko boog hmm. defar ñun defaruñ géej ñun géej lañ jaawat ñu kenn defaruñ dara deful leen dara defaruñ ñu dara hmm. tonnuwuñ suñuy mbalit waaw defaruñ ñu dara ñu ngi rek hmm. dëkk bi amul dara dañu bàyyi ñàkk fayda gi hey nañu bàyyi ñàkk fayda gi kaw nañu ko liggéey forcé muy keneen muy Mariama Sarr muy Serigne Mboup muy Mandiaye Rahma muy Babacar Mbaye Lo ku fi toog liggéeyal ba liggéey ñu dàqal fu mu mën ko am door kon leen lii mère ah. léegi bëgg fu fu nit ñi jël ñool bu baax da ngaa bëgg fu nit ñi jaar léegi yow accepte léegi lan ngay wax waa koñ bi nag si lii lan lay waa koñ bi di xaar si lii ñoom hmm. mais est ce que tamit boo jarul tey jii ni aujourd'hui ngeen génn def si benn séance sociétale sëkk sëkkalu ñu xam mais tamit est ce benn ba lii amee gis ngeen benn politicien mu ñëw boo xam ne bëgg ngeen ne jàppale moom day bu ñëwee laaj ñu yóbbu léegi nag désormais bu leen jox kenn seen dante am leen fulla gis nga lii nekk wax ma ne gis nga ah. dama ni am leen fulla laa wax ku fi ñëw sa laaj seen carte d'identité hmm. nga la ko joxul la dara bàyyi leen ba jour vote bi ñeen na voté ku leen neex ah. yéen moom seen gàtt yéen moom seen bop kenn joxu la ngeen lekk voilà kay jël xam nga lii maire bi taxaw fii di def pour yoon ah, ah. maire bi fii la taxaw maire bi mooy sëkk fii ndax pour yoon pour nit ñi am fu ñu jaar lii nii moo dem moo dem Kanda moo dem Tamba ndax ndox mi lay jaar mais lii yëpp si tali dafa war am tali ñu canaliser ndox mi dëñ comprendre nga mais xool leen tali mbali mi fi nekk lii ay mbalit ay mbalit la mbalit mbalit xoolal xoolal lii yëpp ay mbalit damay bañ a dugg sax suuf nga lii a teg sama yëpp si yëpp ay mbalit lépp mbalit la waa kon tamit waa kon tamit lii mënuñ ko sëkk mais balaa ngaa sëkk il faut nga gis benn autorité bu taxaw ne la ah maa la bëgg dimbali. dañu gën dimbali seen bopp. comprendre ku loo lekk nooy sëkk ay ay mbedd ah ku amul loo lekk doo sëkk ay mbedd ndax nañu dañoo feebar yooyu dañoo bëri koro ndox ndox may gën a salte kaw waaye xoolal lii lii xoolal lii mbokk yi lii lañu fi indiloon seen taxaw seetlu ginnaaw bañ leen sante di leen gërëm eh, di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi tur ko fi askan sunu gaal bu amee lu rafet ci wax ji jàppaleen ne suñu borom la bu amee lu ñaaw jàppaleen leen ci ñun ñii la yàlla yàlla def jàmm dimbala ñi nga xam ne ndox mi daan nangu seen kër yi jërë ngeen jëf